ناجي ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان ناجي ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان ناجي ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان beneen njukkal bu ñu jagleel jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah jëwoon Serigne atu Diagne wuy ji suñu borom ñu def ko ñaari fan ci weeru koor atum ju ne ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar dëppoo fukki fan ak juróom ci avril 2021 xalaat bi nag tukkee ci Serigne Moustapha Diatara mi nga xam ne moo jiite daara kaamil ji nekk ci jumaa ji di bibliothèque bu mag bi ci Touba. ñu doore ko woy wu ñu def ci Serigne atu muy tagg woo xam ne Serigne Abdou Salam Mbacké moo ko jàng ci wolof ñu def ko ci Bahru Tawil moom mi nga xam ne mooy woykat bi dikkaat ci lenn ci manda màndarga yi ñu xamee Sëriñ Yaatu mu doon koo xam ne nee na misaal la royukaay la waaye itam nit la koo xam ne ku woyeef la am xol bu yaatu bari xam-xam lool waaye bari pëstéef di ko am itte ci tënk muy ab murit saadix mu yeggale nag ay kàddoom ginnaaw boo xamante ni lim na lenn ci ay liggéey yu ràññeeku ci yoonu murit yoo xamante ni sëriñ Aatu def na ko te bi ci mujjee ñëpp gis ko muy liggéeyu këru xasida yi nga xam ne sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifa général des mourides digal na ko ko ci biir complexe Cheikh Ahmadoul Khadim bi loolu jàllee nag délégation bi teewaloon jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah sëriñ si Diop ci njiital sëriñ Mouhamadou Mourtala Sey jël nañu kàddu gi bokk na ci yenn fàttali yoo xamante ni Mouhamadou Lamine Diouf def na ko ci turu délégation bi mu jëm ci taxawaay Serigne Atou ak fàttali liggéey bu am solo bii nga xam ne Serigne Moustapha Diatara def na ko rafetlu ko ci jublu gi moo am ci waxtaane jëmm joo xam ne mën naa doon misaal ci ndaw ñi nga xamante ni dañoo sóobu jëm ci yoonu Serigne Touba ci àggal nag moom Serigne Moustapha Diatara mu jébbal délégation bi nga xam ne ñoo teewaloon Hizbut ci kanamu élèves yi ak mbooleem invité yi gan ñi nga xam ne teewoon nañu Serigne Mouhamadou Mourtala Sy nangu ko muy nataal bu yànj bu mag boo xam ne bu Serigne Atou la di jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah liggéey bi nag àgg na ginnaaw boo xamante ni fàttali nañu taalibi Serigne tubaab boo xam ne itteem yépp bi ñu ko xamee ba niñ ko noppee gis ci Serigne Touba rek la xëy dundam gépp mu sànk ko ci moom Serigne atu Diagne yàlla suñu borom dolli ay leeram